est enfin arrivé mbokk internet yi Wassare Lamb ñooñu nuyu di leen ziar bu baax a baax xam ngeen bu ngeen gisee ñoo ngi xam ne fii mooy Guédiawaye boo tuddee Guédiawaye koy tudd Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye doomu Double Less bi koo koy turandoo Balla Gaye numéro 1 koo ko war a daje tey kii di Boy Niang doomu mbër jàngi bëri yàgg yàgg da lay ñam looloo waral ñoom ñaan ñëpp tey di yàgg yàgg ñam da leen koo koy Balla Gaye 2 koo koy Boy Niang qui sera le vainqueur de ce combat Khalil le fou <laughs> Nadia Mor Diala dafa am lu muy def si yoon bi dafa am lu muy def si yoon bi xale lan lay def si yoon bi xale ban la lay def si yoon bi merci xale ban la wax ma. ay waay làmb Balla Gaye na moo lañ ko lii moo na ma ko waaye tey ki muy dajeel mooy Xali Càppa ki muy dajeel tey moo dugg si ñaari yoon mos am si ay trop trop ne si Balla Gaye la nar a jaar pour trop gis tey waa Guédiawaye ñëpp génn ñëpp si ginnaaw Balla Gaye 2 ci bii combat na ko xam ni lii na ko lii moo ko c'est le king waaw Balla Gaye Balla Gaye gagné amul leneen Boy Niang ngay door mu daanu oto bi ma oto la gis ngeen sécurité bi déggal déggal déggal lool déggal déggal déggal lool Boy Niang tey ma rey la Boy Niang tey dee sa yaay jura boo ñaa bu ñu tee rek ngay lekk amul yëngal wala xase am na tuddee sa yaay jura boo ñaa dañu xaar rek ngay def lu metti kalaate ko barke boo ñaa daw laaxu la wax du bëri la man day wax di xoolal di xaar di bàyyi boo ñaa daw laaxu dañ koy li ñaa dañ koy dumal li ñaa wax dem seeti yaayam seet da ngay dem seeti yaayam Balla Gaye ak noonu gis nga mu ngi ko nëwaat dañ ko sécurité bu nekk kanamam te mel ni sax mooy daw la boppam boppam. wala gas fee. dafa mel ni baal ma dara boppam. dina bokk mën ko ba yàq. dafa mel ni baal mooy dara boppam. génn na jëm. wala génn na jëm. du muy wër géej. jour la mu ngay dem géej. ah du pour napp de. <laughs> ah xaalis bu napp de. day sangu sangu set. Kër Masar li woon damaa dañu ko mën daw di topp oto <laughs> damaa xam nag sécurité bi sax taxaw na. Kër Masar la jëm. Kër Masar la jëm.

géej la jëm Balla géej la jëm du muy wër géej jour làmb ngay dem géej xanaa du pour napp de xanaa du pour napp de boo dee sangu set waaw xëy li woon damaa dégg ko ma topp daw di topp oto <laughs> damaa taxaw na Kër Masar la jëm. dafa métti. la jëm. dama ci Kër Masar. moo ne fii suñ garage bi golf man doomu séeréer naa Mbañi Njaay laa maa ngi dëkk 15 kilomètres de Kaolack dëkk Koumbal. Balla dama ko bëgg sama xol. te lu muy def lu ne ñu nga ca guddeeg bëccëg. ñun waa pharmacie golf yëpp doomu Saloum yëpp. mais bi dina dina yomb si moom xay lay bëreel de. non man am naa ci moom yaakaar Balla Gaye su doon bëree ku doog a juddu tey sax man bëgg naa ko yàllaa ma booleeg moom te yàlla na yàlla sottil combat bi kontaan nañ ci moom parce que ñun ñoo dëkk fii golf suñ teraanga ñun fii lañ koy jëlee di ñibbi saalum man de mooy sama mbër man. loox Boy Niang. Boy Niang daal li ma koy digal na def doucement. te yaru te wone yar ak tegin parce que keroog signature bi gis nga ñëwul. li daal loolu la am lu ma ci wax moom. mais yaakaar naa ne war na ñëw bokk su loolu jarul wax xam ne sama yaay xay toog ma xay toog ma. salaamaaleykum yaay booy. salaam. ñu lay nuyu. ñu tey jii xanaa gañe rek. Balla Gaye moom barki Serigne Saliou ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla mbay nam lu sedd guy mu andi ko fii biir golf. yomb de xale lay bëree de booy ñaa. waaw booy ñaa lay bëree xam nañ ko waaye dara jàpp daan ñibisi bu baax su ko teewee barki Serigne Saliou mu daan su bëree ñu gañe ko su xeexee ñu gañe ko déggoo loolu. barki yàlla noonu lay demee ah wala. wasaare naka gisee combat bi. non dafa dafa baax rek. day baax rek. yàlla yàlla may ndam. Ah. waaw wax booy yàlla wax yàlla may ndam rek. waaw. <laughs> man xamu xam naa ko kay man xam na Balla Gaye ak kan lay wax sax. Ah, Balla Gaye Boy Niang ñooy bëre. yow koo yow koo nekk ak. man nekk ma kenn. yàlla yàlla dimbale rek yàlla leen yàlla may ndam yéen ñëpp. amiin waaw <laughs> loolu du daraay murit yow tiktok nga yor jugal fii eh yow tiktok eh non non demal. maaleykum sant yàlla rek. ngi kuul kay. yow la ah, di Moustapha. bu Balla Gaye waaw fan se. oui. da ngeen tey da ngeen koy waaj. combat moom maanaam maanaam sa waaye moom moo nekk sa réseaux sociaux yi di talal la xam na ne combat bi moom ñun doon koy may xaalis rek xam na làmb moom mooy loolu. xaalis lañ koy may xam nga ne sa waay su ko jàppee du doy du gis incha dañu. mais booy bi dafa a bëri te am na doole fu mu toll ah, booy bi mënul dara xamul dara booy bi mooy loolu booy bi laamina ma rëy booy bi xamul dara. waaw xamul dara booy bi soo xamoon dara bàyyi euh, mënu mënul la dëggee dara mënul euh, kii tafaatin dara di daw combat bi yëpp bala Gaye ñoo ñëpp mu ñëw jaa seen kaw taf taf moom lan la mën a waaye. Balla màgget la moo tax. waaw ah, day sóob day sóob loolu su ko waxee waxul lu am Balla Gaye màggat la yàggatu dara si kanam tuuti. si kanam tuuti ok merci. sant kay ziar bu wér a wér. nga ni. moom man moo ëpp doole suñ victoire la ñuy jëli. suñ victoire la jëli nii mooy suñ loxo. suñ victoire suñ ndam moo nekk suñ loxo dañuy dem estaad rek jëli ko ñëwaat géejawaay. booy bi mooy càppaacol bi. boobu du dërëm. dégg nga moo de ñi mi ñaamaa garabu joolaa lekk dee naan mandi. kooku day xaar lu bëri doole. Balla Gaye c'est le meilleur. lamb ji ba mu daj Balla Gaye moo fi daax bëre amul beneen mbër bu mel ni Balla Gaye benn la si lamb ji du am dootul ñaar foofu la yam donc du ba la. sant. mooy delloo ziar bu wér. xaal ñaata. xaal 700 <laughs> am na am na. Balla Gaye doo ko may xaal. Balla Gaye yoon la de. bilaay walaay ñaanal ko rek mooy loolu. bilaay yàpp xaal sunu xel mépp nekk si Balla di ko ñaanal ndam la bilaay walaay ndam lu seedu guy waaw. ay si ah? rek combat bi ah ñoo ngi ñaan yàlla rek mooy loolu ah jàpp na ne rek mooy loolu combat bi la moom amuñu si benn tiit amuñu amuñu si benn tiit. lay wax Boy Niang ah Balla Gaye laa ñaanal mooy loolu waaw. waaw jaajëf sant yàlla ak bi dama ñëw solidarité sama doomu baay sama doomu ndey. Balla Gaye le leader noir l'ambassadeur de la paix seule ci senegal ñoo ah, géejawaay Balla Gaye mooy forom géejawaay mooy forom parcelle. yaa gën a xam. doomi duuxal nekk. waaw mais maanaam Balla Gaye mu ngi fépp ci monde bi. Balla Gaye àdduna la Sénégal la. mooy lamb. Balla Gaye mooy mbër. doomi Double yal na ko yàlla may ndam. ci darajay Muhammad ci barkeb sëñ Baara Mbacke bi ñu boole ma ak moom. ci darajay sëñ Fallou. darajay Serigne Saliou. maa ngi koy yéene victoire bi ak ndam gi. Balla Gaye gaynde la góor yàlla la yal na ko sëñ Baara sigil. waaw mais booy ñaa xaw ma ci moom dara man proposé ma Balla Gaye rek. Balla Gaye mooy bëre Boy Niang ngeen xamul dara. waaw mais mooy bëreeg Balla Gaye mais man Balla Gaye ci la moom laay wax Balla Gaye laay yéene moom victoire. Balla Gaye màgget la. Balla Gaye màgget la màgget moo xamante ne am na ay fiyam am ay ngelaju bis bu jàkkaarloo ak Balla Gaye moo xam ne Balla gay gaynde la góor yàlla la Balla gayndee la góor yàlla la. waay sant gaay waay maa ngi kul baax a baax waay waaj ko di dal tey ak tey xam suñu bër wóolu suñu bër gëm suñu bër quoi. waaw. champion waaw ndax ñun benn instant amul lu ñuy prouver si làmb ndax moom demoon na ba maye une minute. ñëwaan na kii ñoo ngi koy xaar. nee tax mu man tax mu saa eh, dafa bëgg dóor Balla Gaye Balla Gaye bëgg a démb war nga def. sa dama laa ne ñaa Niang ñeme ñemewul kooku du xeex kooku du bëre du xeex du bëre lu mu def daanu lu leer laa lay wax. non ñun maanaam doo wóor suñu mbër gëm suñu mbër xam suñu mbër ban ban qualité la quoi. waaw mais qualité xoolee moom si Boy Niang tamit. non déggoo ma xanaa Boy Niang amul benn amul benn luur bu mu fi daan. lu saa kees kese la fi daan. mais yéen yéen luur yëpp dasee échec. munul am dara si si si munul am dara si gars yi. parce que mooy fi ma ne wóor na ma am sa rafal. une minute la leen mayoon une léegi daw na yokku na yokku na temps bi léegi leneen lu mu def bu leen bett. moom moom mën daw quoi. tax mu yokk temps lu tax mu yokk temps bi. Ah. dafa bëgg duma Balla moom bu tëddoon ba guddi ñu ne nga lay duma Balla sax moom saa yi xam ne moom loolu warul am. Balla Balla Gaye champion bu ne mbëri ñi doon wax dañoo mën a xeex da leen fekk seen mëneen duma leen daan leen ana Tapha Tine ana Gris Bordeaux seetaan nga seen premier combat ba Gris dañ ko dóor ba bañ ko interroger da doon laaj télé bi ban télé la déggoo de sa waay. voilà li bi kenn kenn ko def ci arrêt bi. waaw waaw waaw waaw li balaa li mu def ci arrêt bi nii mbër yëpp kenn ko kenn ko def ci arrêt bi Boy dafa bari wax nee ko na yaru na toog ñun ñoo ko mun. lamb wax ci la bokk. voilà lamb foofu la bokk mais ku mun sa baay moo la mun. mais mais Boy Niang Boy Niang mu mun rakam parce que rakam. Boy Niang Balla Gaye moo ko mun. Balla moo mun booy Niang. mais Boy dafa am lu mu def ci lamb dafa ñëw géejawaay dugg ci dëkk bi laaj koy borom dëkk bi ñu ne ko Balla Gaye mu jàpp waa dëkk bi yëpp daan daan ne kër borom dëkk bi laay laajte. ñu ne ko kër Balla Gaye mooy borom dëkk bi mu daan Sa Thiès mi nga xam ne moo bokk ak Balla Gaye ndey ak baay war a dëdmal Balla Gaye 2 tey waa géej waa yéen combat bi su ngeen ne ah tegu leen ko ci Prexo tamit da ngeen di ah mais Boy Niang mbir la de loolu loo ci wax. Euh, Boy Niang ñun ñun supporter Balla Gaye ñun ñu wax Boy Niang na yaru ñun Balla Gaye Balla Gaye moom mun Boy Niang cinquante moo ko mun. fu ma ko teg ci Balla Gaye laa ko teg. waaw Boy Niang leen laa koy yóbbante Boy Niang kondiru gumba la te Macky Sall dëkk bi yëpp da koo gas. jaan bi am problème de. na ko bàyyi xel loolu rek laa koy yóbbante. am am kay kay kay am may la ko. jaajëf Fatou. yow dëgg da ngaa boo ñaaree xaar. yow instant ñaata la junni. ticket 5000 la. ticket jëndee ko si gisee bi di ko jaay 7000 wala 6000 ndax Balla Gaye 2 moo tax. takkusaan bi gëj bi fee am. bii six mille laa jëndee. stade bi yëpp Balla Gaye kese la. stade stade fees na. fees na dell laa lay wax. damaa ñëwaat fii pour topp convoi bi. ndax Balla moo ko jar boo ñëwaat day xaar rek. boo dee nga am place awul bon bañ a ñun buñ dugal sa nañ ko xoote amul problème lépp Balla la. noo gisee combat bi jox jox gaay non non noo tudd yow Abdou laa tudd Abdou Abdou noo gisee combat bi na Balla Gaye jàpp daan rek wax di jeex day yomb trop moom day yomb kay noonu lañ ko bëggee dégg ma waaw boo ñaaree dërëm boo dugal barki sëñ Tuubaa doo dugal. bilaa moo ñoo bokk ndey ak baay moo leen dugal si làmb. mais doon dafay leen bëri doon ñëw wax ak ñoom. Balla Gaye nu mu paree si làmb boo ñëwee xaajul ba koy paree si làmb daan ko. daan la dem sa yoon mu jeex. amul. e eh, Koromak. Koromak. gari gari. Ah?

après nga comprendre bu laa ma daje nañ fa dajawaat naa la ko tojal yax bi <laughs> incha allah. kaay ma xool lii kii bi eh, bu doon ma xool ndox mi fa ndox bu naan eh de. Ah, comme kaay. kii daa jege Balla Gaye il faut ñu laaj ko eh come kay kay come kay kay boy boy ma wut ma jël ngir affaire ñaan may na sa espace borom inter ya ah. Bathily Bathily yaa ngi yëre de meen maa ngi ni fi moom fi moom tooy na di xepp ani mbër mbër mi ngi fi. ak mais gënul léegi. waaw ah, génn lu tax muy génn. waaw oto bu kii boo yëpp tëralee ànd ak moom. Ah. yaakaar moom du moom. non gars dañuy xaar. ni ngeen préparé combat bi. Ah, ñu ngi koy paree comme ni ñuy paree yeneen combat rek ne làmb ji moom ba par nañ ko jàppee. waaw waaw xeeb buñ ko xeeb ñu am adversaire ko xeeb mais tey dina xam ne ne mi ngi soog am adversaire mi ngi dajeeg ndaanaan boo xam ne ne kenn mënu ko maîtriser si biir géew ndax kenn xamul nan lay ñëwee. boo ñaatu kenn xamul mu ñëwee si biir géwél de. boo ñaa cuune la. càppaa cuuli bi. ko wax lañ ko xamee wax rek la si laamu ji géwél bu waxul du du nelaw faa mu wax. mais Balla Gaye tamit wax bii bokkul. gars yi dafa yaakaar mag la. Balla du mag de Balla xale bu ndaw la. Ah. magante wuñ dara. te si kanam tuuti dina leer bu soobee yàlla incha allah. waa Pikine ñoo ngi mobiliser isa isa bi waa Pikine dañoo tiit mënuñu wax pression bi ñu leen teg moo bari na leen duma dina leen daan prix bi rek la ñuy xaar su bëree ñu daan ko bu xeexee ñu duma ko maa la wax lii man si sunu sunu sunu mbër dañ ko wóolu. Balla Gaye ngeen di waxal de boo ñaa mbëru ambiance day taral rek mais buñ ko jàpp kan moo màgget 36 ans nu mu màggetee yéen xamu leen 25 ans nga am roi dina dina waay waay sa waay duma dañ koy daan man maa la wax li man après ko tegaat. waaw man xam nga may wax si Bal si maa ngi nuyu sama mbokk soose yëpp ma naan abadi mbandi ana kamboy laana. dégg lool gis nga nañu ñaanal Balla Gaye ñoom ñëpp soose yëpp waa Casamance waa Sédhiou ñoom ñëpp na ñaanal Balla Gaye ndam rek gis nga boo ñaan moom ngay wax noonu day xaar. incha allah gis nga ko Balla bu ko Balla jàppee mu xam ne Balla ko dàq bëre billaay walaay Balla revanche la koy bëreel xam nga revanche revanche la Balla di bëre contre moom moom moom booy ñaar si kattanu yàlla incha allah rabbi Balla Gaye day am ndam bu neexee yàlla merci beaucoup jaajëf tàcc leen loolu waaye. waaye booy ñaar mbër la. booy jaar booy jaar dañ koy dañ koy jàngal bëre. du mbër Balla mbër la de. Balla man dégg ñu ne Balla Gaye 2 la ñu. daa màgget daa tey bu woon ko nag xale. mag dina dóor xale. laaj laaj ko Modou Lo laaj teel loo Lo rek laaj ko Modou Lo Modou Lo xam na ndax la dafa màgget wala màggetul c'est bu ko Balla jàppee tey da koy jàngalaat bëre xaw ma xaw ma booy ñaar xaw ma booy. moo daan Sa Thiès de. nga de non non non loolu kii la rek dañ koy saaloo war rek loolu la war rek loolu ñun xam nañ loolu soo sëyee ah billaay wallaay da koy may sens da koy may la rek mën naa daan rakkam daan magam loolu du si dara waaw mën naa daan rakkam te du daan ko daan def ndax ñu xool waa Pikine ñun dim li ñuy wax ci diggante combat Balla Gaye 2 ak Boy cey bi combat lu xew fee lu xew lu combat xam nga la laa ko combat bi day commencé Balla Gaye tey Boy Niang dugal ñaar coup Boy Niang daan ki suuf. combat bi jeex waaw. booy rek. poussé xale li xale yi ak nañu suñu poussé xooloo poussé poussé ngoog boo gisee poussé nga xam ne Balla Gaye mu ngi na la bu yàgg kankuraa ba na lu ma ragal a xale bi nag kontaan na ah nit mbokkam waaye waaye xale gis ba bàyyi yàq samay wax lii mooy kankurang li muy def nii moom lay wax si kankurang Nimré eh, eh, eh, eh Khalil attention ay ay ay ay ay boy yow Casamance nga dëkk ma dëkk ma Casamance boy arrière boy Khalil boy man maa ngi de yow Joola nga xam nga lii ay waay nit mbokkam waaye Khalil gis na mbokkam waaw xale du ko eh, booy puus leen ah, booy moom ñeme nañ puus leen waaw ah, waaye xale kontaan na waaye gis naa ay mbokkam nit mbokkam moom xale moo ngi koy jege di eh, gis na wa booy mbeñ na la ah ah booy wax booy mbeñ na booy ba laal la eh. concurrents